noonu Serigne Ndiaye bu Faas ndeysaan ñu naan ko Moussa Niafat moog Boy Faye jëli na tànk ba Boy bañ na ñoom ñaar dina yomb Boy Faye na Serigne bañ na Boy Faye nga koy biij lu mu nar moom Boy Faye na ko Cheikh Tidiane ñaa bañ na Cheikh Tidiane Niang Ada Boy Baol zongale na ko daan na ko Ada Boy daan na Cheikh Tidiane Niang Ada Boy daan na Cheikh Tidiane ndeysaan Cheikh Tidiane daanu na Ada Boy daan na ko Boy Faye Cheikh Serigne daan na Boy Faye ndeysaan yéen ñaar ñëpp vous n'a pas démérité muy Cheikh Tidiane Niang muy Boy Faye lamba gi noonu décourage il n'a pas démérité moom Cheikh Tidiane moom Boy Faye ndeysaan ma ne ñoom ñaar ñëpp sëñ Bas. waaw ah àggaleel ah, yow yaay wax. ma ne Cheikh Tidiane ak Boy Faye vous n'a pas démérité. <laughs> démérité ndeysaan sëñ Bas ñu ngi ci combat blindé ndeysaan. moog Belende yàgg na buur. dañoo